عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق man Aboubacar Siddiq laa tudd Mohamed maa ko magee at waaye daal man maa doon wax mag parce que yoon bi rekk lay dox yoonu islam yoon yoonu diin bi te moom moo ko doon jàngal bët bu set sooy gis Mohammed always got his kurus biit dóor kurus rek la xam la mën te dañ ko doon jàngal Mohammed lu ma bëgg a wax nit ñi yëpp xam nañ ko ba pare kon lu nit ñi xam jarul gekkee wax li ngeen xibaar bi ko dundee yéen mm, um, man nu ma uh, man lu ma ko jëlee ma doon nelaw quatre heures quatre heures vingt ay quatre heures dix-huit yooyu moo jor suma yaay ñëw suma ne elma ma doon nelaw Amérique su ma néeg mu wax ma lu euh, lu xew gëw ma ko woon loolu waaye ah donc gëmme gëw ma ko après rakki allahu di Muhyiddin Cissé moom ma yónni photo yi après mu ooma wax ma lu lu xew mu wax ma lu xew gaw ma ko sama uh, rak Fatima famille bi daal ñëw si néeg bi di di jooy mel na kii you know après mbokk yi commencé ñëw kër gi ay mbokk yi cousins yi aunties like ba léegi gom goma ko Mohamed la am 22 mu génn àdduna àllarba January 22 ah mm-hmm. mm-hmm. ma jël alquran bi ma kaa ubbi rek ma kaa ubbi si 22 mooy saar xaaju bi après am na lu ma Tabir's page والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا la yarzuqannahum allahu rizqan xasana wa inna allaha la huwa xayru raziqin nee ba mbokka mi gaañoo aaya bi dafa dafa tiit rek ubbi kaamil bi loxoom dal ci suratul xajj mu dajeeg aaya 58 yàlla di ci wax ne ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla dal di hijra gàddaay ci yoonu yàlla ñu rey leen wala ñu dee yàlla dina leen wërsëgal wërsëg yu kawe yu baax te yàlla mooy gën ci kiy wërsëgalaate walladina haajaru fi sabilillahi thumma qutiluu aw maatuu la yarzuqannahum allahu rizqan xasana wa inna allaha la huwa xayru raziqin sadaqa allahu alazim amin moo ubbi loolu jàng ko affaire bi rek commencé wàcc parce que xam naa Muhammad is in a better place. fu gën a fu gën a baax àdduna la dem loolu moo tax affaire bi dana may famille bi doole dana may diine bi doole dana may yàlla mu may àdduna bi yëpp doole sama papa alhamdulilah mu ngi si hôpital bi mu ngi faju faju bu baax alhamdulilah sant yàlla mu ngi faj faj bu baax te moom tey laa ko wax affaire bi après mu ne moom yéegoon na ko si xol bi mhm. affaire bi bu xewoon te man tamit xamoon naa loolu tamit ba bu nekk ko dugg how's Mohammed doing He's good. suma papa daal alhamdulilah jàmbaar la. du ngeen gisee taxawaayu seen famille d'accueil maanaam famille Cissé Cissé bi nga xamante ni. Hmm. ñoom ñoo fi dalal képp kuy américain rawatina yéen nag nga xam ne xam ngeen leen bu baax bi affaire yi ba léegi ñu ngi ciy dox tànk yu am solo man ngeen gisee ñoom seen taxawaay. lu rafet. lu rafet lu dëgër lu foor lu neex lu baax ndax ndax lii du ragal ngeen ragal wala <laughs> ragal hmm. ragal lan <laughs> yàlla mu ne moom rek nga war a ragal li uh-huh. nga gisee àddina bi yëpp fàq Medina Baye mbooloo mi ñëw te kenn woowul leen lan la def si yow lan la def si yow bi nga gisee mbooloo mi ñëpp ak moom. fuur bi noonu. ñëw ànd ak sa people bi la def si yow bi ko gisee ak la nga yëgoon bi ba léegi mënuma kaa wax si um, words déedéet si làkk. dafa garaaw. Hmm. wax ko ci anglais. déedéet amul langage bu bi affaire bi de alhamdulilah macha allah Mouhamed ku ko xam yépp suñ mbokk wax ma man bokkuma si yéen bokk moo xam ne xol bi xel bi yaram bi yëpp sëñ Madina Baay la nekk صلاة الله ثم السلام فطلع